ginnaaw bi ñuy sante yàlla bu baax julli ci sunu sang Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di ñaanal di nuyu mboole mbokk yi nga xam ñoo fi teew yëpp kenn ko ne ci turam ak santam di leen siyaare bu baax nuyu bi ak siyaare bi nag ñu teg ko ci suñu jëwriñ jooju fi nekk muy sëriñ Ngunda Fall wax dëgg yàlla moom comme ni ko Assane waxee rek wax dëgg yàlla kilifa gu mat kilifa la waaye dafa tombé rek moom mbaax gi ak ak dal gi ak bëgg lu baax yéene ko ñëpp ndax nit bu nekkee ci lu baax di ko def day jàpp ni koy def rek moom koy defal yéene jooju ak dal googu rek lay am ba day day moom daa oyofal lépp rek waaye kilifa gu mat kilifa la ñoo ngi koy siyaar bu baax di siyaar bu baax suñu Assane Baye Fall mi nga xam ne tamit mooy jërul maam Cheikh wax dëgg yàlla nekkal na fi ñun ñëpp di yëkkati kàddu yu rafet saa yu ne ngir liggéey bi jëm kanam te saa bu ko yëkkatee day matale daanaka du jar kedd ca doole dara di ci bis bi ndax bis bi day bis bu am boo xam ni comme ni ko sëriñ bi wootee comme ni ma ko waxoon léegi mu am solo lool ndax ku ne xam na ni baatub laa ilaha illallah sëñ Muntaxa woote ko pour waa Sénégal gépp àndandoo di ko yëkkati ca Touba loolu kawe na lool ndax baatub laa ilaha illallah de baat bu oyof la ci tudd ko ci làmmiñ waaye ëllëg yombal xiyaam tam la ul meezaan maanaam dana dis gan na ci ay ci ay ci ay balaas kon baat boobu baat bu am solo la boo xam ni nit ku nekk sax war nga di faral di ko di ko wax lu baree baree bari képp koo xam ne daje nga ak sëriñ bu mat sëriñ xam xam xam turu yàlla ba jukkil la ci baatu laa ilaha illallah la la la lu tolloog yow la nga méngool ba jox la ko mën naa defar sa àdduna defar sa àllaaxira kon sëriñ bi yiw yiw woowu ak yéene jooju moom la yéene jullit ñi ak jàmm ñëpp su ko defee ñun ñëpp ñu mbokk ñaanal ko bu defee tamit li ci doolee ko mooy ñu gën a góorgóorluwaat bu baax ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa ak fonk ko ndax liggéeyal Sëriñ Tuubaa mënta ñàkk maanaam boo xësee wax ne aslan aslantu nafsi moomatoo sa bopp maanaam bu sëriñ bi wootee da war a dem bu laajee da ngaa war a joxe li nga yor moomu ñun lu ñu yor moomuñu ci dara lépp sëriñ bee moom. kon nag nañ ak maanaam temps beeg daa xat ak liggéey beeg lépp saa bu bi wootee bu fekkee dëgg aslantu naf si nga dëgg li ci yow saa bu bi wootee loo jàppoon na ko war a bàyyi ñëw kon ñu fonk daayira yi bu baax di ci teew di ci liggéeyal sëriñ Tuubaa bu baax moo fi des ci liggéey boo nekkee sa bopp une semaine ba semaine bi jeex ñu woo la ne la ñaari waxtu ñu liggéeyal sëriñ Tuubaa nga nga wutal ko ngànt loolu sa ngàntal bopp la waaye loolu kenn waru ko pour man kenn waru ko mën amal ngànt waaw kon nag loolu nañ ci nan nañ ko bàyyi xel bu baax a baax gën a góorgóorwaat ci liggéeyal Sëñ Tuubaa xam ni moo fi des ci liggéey su ko defee ba jot ñuy teel a ñëw daayira yi taalibe yi kenn ku ne fa nga nekk demal ci daayira ba la gën a jege lépp liggéey Sëñ tubaal la waaw bu ko defee ñuy teel a ñëw di fi jàngal alxuraan ak xasida yi di fi sikkar def sikkurulaay bi comme ni ñu koy defee kon loolu ñoo ngi leen koy fàttali di ko fàttali suñu bopp na euh, été bi nga xam ne moom lañ jëm ñoo ngi ciy ñaanal ñëpp suñu borom def ci jàmm def ci taw tawfeex ju yaatu lépp loo xam ne jàmm mébét na ko ak nu mu ko bëggee ak nu mu ko yéenee yal na ko suñu borom defal te defal ko muy lu gën ci moom bi xoon ma ti xuraanu karim suñ mbokki julli yi nga xam ne bërki démb it loolu mbir mi dal na seen kaw muy démb yal yàlla oyofal ko ndax am nattu rek ndax olof Njaay day wax ne yàqule moo gën yàqu te nit ku nekk rek sa alal yàqu gën sa jëmm yàqu te nit ki maanaam feek moo ngi dund rek dara jomb ko ci kaw suuf kon na muñ nañuy muñ tey gëm dogalu yàlla tey góorgóorlu te nekk ci yoon wa buñ ko defee rek incha lépp dana baax kon euh, kàddu yi wax di yàlla moom euh, tabarkàlla daal xam naa dañ ko yemale foofu rek <laughs> classe yi muudi yàkkamti nañoo dem dallu ji <laughs> waaw si Assane kàddu yaa ngi noonu wax di yàlla ñoo ngi jégg lu baax buñ sañeen mu gën a yaatu gën a kii waaye lépp mat na wax de lépp rafet kontaan nañ baax daal wax di yàlla jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridina mi jàmbaari jaam ñi ñu ngi nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi yeewoo fii ci Touba Argentine di ci jiital jëwriñu Serigne Touba ji muy Serigne mortal Talla Sall di ci toftalit suñu waajur yi nga xam ne ñoom ñoo toog waaye nuyoo boobu ak ziar beeg yëpp rek dañ koy jël dëxëñ ko teg ko ci loxol kilifa jataay bi muy Serigne Ngunda mi fi toogee jataayu maam Cheikh Ibrahima Fall di fi suñum Cheikh Ibra muy jëwriñu Cheikh Rafal fii ci dëkk bi man ab lanti laa rek kon ñu ngi koy nuyu bu baax Fall amuñu ndigalu nag yëkkati kàddu yi jox la ko nga wax ba pare ñuy door a wax déedéet ndax sëñ seen ndigal dañu ko fee jàngaloon da ngay wax ba noppi jox sa kilifa mu tëj kon bu ko defee dañuy jàllale kàddu yi nga xam ne bëgg nañ koo jàllale te am yëg-yëgu jàllale ko bu ñu noppee jox sëriñ bi mu tëj ndax moom moo yor caabi ji kon moom moo war a tëj ñun ay gardien lañ rek kon mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di amaat mbégte ci ndigal lii nga xam ne moom la sëriñ bi woote muy sëriñ Muntaxa Mbàkke moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bachir mbokk yi may wax ne keroog 1930 le 30 juillet 1930 ba suñu jàmbaar ja làqoo muy maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp oto ba ñu ko jëlee njaareem di ko yóbbu Touba sëriñ Bachiroo nekk ca biir oto ba moo ko jëlee njaareem yóbbu ko Touba. kon nga xam ne Serigne Bassirou moomu moo dellu siwaat muy Serigne Mountakha may wax ne kàddu yi may wax ma bëgg mbokki taalibe yi àdduna sépp bàyyi ko xel muy sëriñ Serigne taxaa bu yomal xiyaamee ndax waxoon naa fi kàddu goo xam ne dañ ne xool leen dof bi ma ngay ma ngay waxati bu may wax dañ naan dof baa ngi wax waaye nag naam jëmm ji mën naa dofe waaye bu ñu demee bay wax ñun ay ay waxande lan wu ñu sëfi wax waxande wu ñu sëfi wax nag ki ñu sëfi wax mooy Cheikh Ibra te moo ñuy wax loo xaw ma yéen a ngi koy fàttali comme déet bi fi sëriñ Isaaxa Mbàkke rakki sëñ Muntaxa ñëwee fii ci hôtel Bawane maa jog jël micro ne leen xaw ma ku mu fiy fekk du yàgg dara diir bu gàtt sëñ Muntaxa dana doon sëñ Tuubaa dañ ne dem leen jël micro bi ab dof la bàyyi kii motut un mois sëñ Muntaxa doon sëñ Tuubaa waaye lii ma leen di waxe dama bëgg ngeen jàpp ko muy lu wér bu keroog yomal xiyaamee ba jinneeg malaaka teew fa kanamu suñu borom doomu aadama teew sëriñ mun taxaa yàlla dana ko fay ni ko yàllay fayee premièrement mooy li yàlla santaane yépp ma nga ca sëñ Muntaxa li yàlla santaane yépp ma nga ca kon yàlla moom dana ko fay fayu boppam sëñ Muntaxa jikko ja rafet na sëñ Muntaxa rafet na xol sëñ taxaa alalam du ko booleeg nit sëñ Muntaxa jullit aqi xatan la bi jumaa yépp tëjee senegal Sénégal yam tëjul kon kooku jullit la kon bu yàlla di fay yomal xiyaam dana fay sëñ Muntaxa yomal xiyaam bu Seydina Muhammad di fay jaam dana fay eh, sëriñ Muntaxa ndax li ñuy woote ci jullit yépp mu ngi ci sëriñ Muntaxa waaye yomal xiyaam bu sëñ Tuubaa di séddale it dana fay sëriñ Muntaxa waaye yomal xiyaam bu sëriñ Tuubaa joxee Cheikh Ibra ba ne ko ramul jaam ñi it dana fay sëriñ Muntaxa waaye bu Cheikh Ibra fayee Serigne Mountakha ba pare ñun ñuy jaamaati jaamaati jaamaati di taalibey Cheikh Rafal ñun ameel nañu njukkal Serigne Mountakha Mbàkke te danañ ko fay ndax lim ñu defal dafa rëy lii day lu rëy muy defoon nañu fi journée xasida boo xam ne dañ dañ dañ doon sant Serigne Touba mu dellu siwaat ne nañu def journée boo xam ne journée zikrullah lay doon sante ko maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridina moo gore sëñ Mountakha Mbàkke moo gore Serigne Mountakha. moo gore te moo dégg wax ji nag xam nga gars yi dañ naan dégg wax ji sëñ Muntaxa rek a dégg wax ji tey noir blanc la def black and white muy sëñ Tuubaa ak xam ngeen lan mooy noir et xoolal fële Cheikh dafa sol ñuul ma nga nële photo baa nga ne jiital weex ci biir muy sëñ Tuubaa Cheikh ne ci biiram sëñ Tuubaa Cheikh dafa jiital weex muy sëñ Tuubaa la jiital jël maam jël jëmmam moom teg ci kaw ma nga ne dafa jiital weex teg ñuul ci kaw sëñ jël Cheikh Rafaal jiital ci biiram muy ñuul xool leen sëñtuwaa dafa jiital ñuul moom it jël weex teg ci kaw muy jalaal ak jamaal kenn mënta dem bàyyi moroomam sëñ Tuubaa ak Cheikh Rafaal jënn jëmm ñaari jëmm kenn lan sëñtuwaa Tuubaa ak Cheikh ñaari jëmm kenn mooy sëñ Tuubaa ak amul xàjj amul seen sëñtuwaa bari na ñu bokkal bari na ñu sës rëkk ci moom waaye boo nee sëñ Tuubaa rek Cheikh nga ciy teg loola nag li ko waral mooy daa bàyyi woon boppam ndax murit bu dee booy jébbalu ñeent ngay yor ñeent ñeent yi benn bi kese ngay joxe ñett yëpp nga téel ko sa bopp muy dangay joxe sa bopp ne def naa atlantu si joxe naa sama bopp adduna ak alaaxira Cheikh nag bi muy jébbalu si ci sëñ Tuubaa ñeent yëpp la far joxe moom desewul dara muy dafa joxe boppam joxe boppam joxe bokkam joxe ngoram joxe alalam joxe doomam joxe léppam moom Cheikh Ibra desewul dara Cheikh Ibra rek a jébbulu joxe lépp te desewul dara Seydina Ousmane ba Seydina Mohamad wootee ne lu waaye am na ko indi ñii di jël di desal ñii di indi moom dafa buub lépp Cheikh jikko jooju la yoroon dafa jox léppam Serigne Touba kon nag ñu ngi jaajëfal Serigne Mountakha bu baax a baax a baax Serigne Mountakha Mbacke Basirou dana yàgg dana wér dana neex ndax murit la xalifa gi toogul ba mu fekk si ko da koo jëli sëñ Mountakha da koo jëli xalifa gi toogul ba mu fekk si ko da koo jëli kon nag yal na yàgg yal na wér moom Serigne Mountakha kull ku ne ci kaw suuf rek ngay jullit ndax nag moom xarit xarit xaritu jullit yépp la muy murit beeg tiijaan beeg xaadir beeg la ñépp a bëgg sëñ Mountakha kon nag yal na yàgg. yar na wér sëriñ Muntaxa yal na fi sax dàkk lii mu ñu defal nii day barke maam Cheikh ma Fall Lamp ñun ñun jaam jaamaati taalibe yi nga xamante ne ni ñoo gën a suufe ci biir kër Cheikh Ibra muy sama classe gi yomal xiyaam danañ fay sëriñ Muntaxa ngir li mu defal Cheikh Ibra Fall maamam ju baax ja kon maa ngi jégglu bu baax di wàcce foofu kàddu yi di tuub bu baax a baax nag di jégglu ndax mbégte la ñuy waxee kon bu ko defee rek ñu jox ki nga xam ne mooy sëñ bi kàddu yi muy maam Ngunda Mm-hmm. déedéet ëpp naa def Fall ëpp naa def ëpp naa def naa def nga barkeelu ci ëpp naa def kuy ñoddi rek la nga yor jotul boo ko fekkee mook taalibe yi doo leen xàmmee waaye Cheikh Ibrahima sa maam sëñ Modou Mbenda Fall ay sa maam waaw sëñ Modou Mbenda Fall mooy sa maam ak xatan barke maam Cheikh Fall da gore rek fuñ la fekk yaa ngi ne ngirim waaye koo gis muy ñoddi lam yor a jotut ki jot le fipp fi mu ne xirim la naan xirim yor lu jot faal da jot le waaw mënta ñàkk mën ngaa jàllale ka mënta ñàkk faal mënta bismillaahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin mbokki taalibe yi noo leen di nuyu bu baax di leen siyaare di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi sëñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanal sëñ Amdi Fall moom sëñ Mut Fall Mbenda ni toog jotaay maam Cheikh Fall mu yàgg fi lool te ànd ak wér di nuy bu baax mbokk taalibe yi fi teew nag di di ci teg sunu jëwrin sëñ Mor Talla Sall mi nga xam ne moo fi jëwriñ sëñ Touba mën nañ ne daanaka moo fi am sëñ Touba di nuyu mbokk taalibe yëpp nag fi mu moom daanaka xol bee fees ba kàddu yi mënut a jóg waaw xanaa dañuy def ñaan rek ni ma ko waxee Baye ma mënut ñàkk nan def ñaan rek ñoo ngi sant ñëpp daal di sant ñëpp di ñaan tamit mboolem ko xam ne aaju indi nga ko fi Cheikh Ibra fajal la ko ndax borom bis bi mën na lépp waaw man moom bir na ma ni fépp fu koy defee rek teew na fa ndax li mu Muntaxa le tax mu def ko du asaar waaw loolu moom man a ci lu may sikk kon mboolem képp koo xam ne teew nga fi yàlla na sunu borom fajal la say aajo ci barke maam Cheikh Ibra Fall Lambaye Mourideen waaw nañ def ñaan rek barke borom Tuubaa